Euh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen nuyu ci turu Benno Bokk Yaakaar ni ko ñi ma jiitu waxe dafa mel ne dafa am loo xam ne ci àdduna bi du fi gan mooy bépp réew boo xam ne feeñ na fa wala yaakaar nañ fa mu am alal ju génn rawatina mu jëm ci wàllu petrol gaz ak yu ni ñépp xam nañ ni yëngu-yëngu dafa yam ngir ci àdduna bi dafa am ñoo xam ne loola lañu soxla te nag la daloon réew ya ko njëkk a am ña ko def te la ñu soxla woon démb ci réew yooyu ñu soxlaal ñu ko li wér te wóor mooy maanaam xëy na pexe bu dëppoo ak lu mën a am ci Sénégal la ñuy wër waaye nañu jàpp ne maanaam seen bët mi ngi tege ci ñu loola nag dafa ñu may ñu mën a jàngat lépp loo xam ne ci jamono yii yépp mi ngi fi feeñ ba tax na dafay jaadu rek ñu woote loo xam ne dana jëm ci ñi nga xam ne du ñàkk ñu ni dañoo bëgg a wengal gaal gi waaye boo xoolee jëf ji la mu gën a nuru du wengal gaal gi waaye wengal géej gi te loola nag gëm naa ni kenn du ca mucc

bi nga xamante nag décider dañ koy def ci date bi nga xam ne yoon loolu la santaane mu mel ne nag pexe yu bari dugg na boo ko jàngatee da nga naan dafa xëy na ñoo xam ne bëgguñu dem ci élection yi ci boppam euh, réew nag dafa am lu ko lal mooy euh, réew dafay am yoon maanaam du ku nekk yaay fajal sa bopp te du ko man sa morom duma kon lola motax ñuy wax muy am justice ndax tay su fekkee ne ñun ñëpp am nañu code électoral bo xam dañoo dajé ci dialogue national waxtaane point yu bëri ba ci ñaar fukki point ak juroom ñaar yañ doon waxtaane ñu déggo ci ñaar fukki ak juroom ah ñu dem ba am code électoral bo xam biñuy bi dem déposer ci liste ñëpp xam nañ ko amul kenn

Nous dem ci conseil constitutionnel mi nga xam walu wo moy ñu dem ci conseil constitutionnel mu dogal jox le deug mu jox le deug nga ci ministre de l'intérieur am dogal bu mu jël ca walu wo lamu japp né décision bobu yóbbu ko ca yoon woowa muy bu conseil constitutionnel maanaam yow jàpp nga ni kon ah bu ñu nekkee ci réew démocratie di fa dox la nga xam ne moom moo ci ëpp solo mooy bu ñu bëggee ci dara nañ ko lijjantee ci yoon ñu dem ce yoon yoon dogal cette fois si mu am loo xam ne yow neexu la ah nga ni doo déglu yoon xam nga loolu su amee day nekk problème doon nañ mën a dégg nit ku taxaw ne ministre de l'intérieur wax na reconnaître ma bañ dem saisir le conseil constitutionnel à partir de ce moment là ñu ni kii dafa nekk ci benn logique mais mënuloo jóg tey boo saisiree conseil constitutionnel mu jox le dëgg nga bëgg nga saisiraat ko joxu la dëgg nga ne conseil constitutionnel bi ci moom daa war a démissionné loola bu amee euh, dafay wane ni kon manam réew mi nga xamné dafa opté pour di dox ci yoon ak réew mi nga xamné dafa opté di dox ci démocratie yow loolu da nga ko bëgg téggi ñepp xam nañu né fi ci Sénégal sénégalais ñoo choisir fi ñu jëm ñu jëme fa ci jamm fi ñu jëm ñu fay jëme ci démocratie ah ku melne man ak ñenen da nañ fi nek ci biir opposition bi jamonoy président Abdoulaye Wade ñu jog taxawal IDEWA initiative pour le départ de Wade mais askan wi dafa ni il n'en est pas question askan wi dafa jog daal ni fi réew mi nous, fi fal nit ñu qui ko ci leneen les Qui élection képp koo que ni da nga d'accordul ak opposés opposé wul nga wax sa xalaat da nga xaar ba Nous élection yu ko Nous avons nga doog ñëw ñun ñëpp nañ ko fi ñu continuer di doxal parce que sénégalais yi ci boppam bu ñu taxaw nag pour wan la ni limite bi dañ la koy C'est ñëpp xam nañu

loola soo woté wat manifestation xam ni du manifestation pacifique loolu aussi moy réalité euh, Fi ci Senegal, Sénégal dafa am solo ñu fatali ñepp né même bu jafe ta jafe na nak effectivement buñu waxé né tay amna ay jafe jafé ci walu dundu bi kenn mënul taxaw wax né jafe-jafe amul wayé dañuy wax né manam nguuru Sénégal Euh, li mu ci def ci wàllu ndàmpaay su ko ci deful woon fan la ñuy toll tey nga xam ne muy ci wàllu courant bi di wàllu énergie yépp muy jëm ci wàllu euh, lépp lu jëm ci ay mbirum euh, boulangerie yi nga xam ne mburu yi fay defar ak yépp ñooñu lañu leen indil ci ak woyefal woyefal yooyu yépp wëlbatiku Euh, droit de douane yoo xamante ni ay nit yi nga xam dañ fiy indi lu ñuy jariñoo ngir mën a defar lu Sénégalais yi soxla état bi ci boppam la mu leen waroon a teg te bu leen ko tegee day teguwaat teguwaat ba tegu ci njëg bay dem ca nit ka état bi ci boppam dem lu ci bëri mu renoncer ci lool hmm. tey kenn koo xam ne yaa ngi bëgg a loolu li nga waroon a def du yem ci wax ne jafe na dangaa war a wax bu ñu defee nangam mu gën mais déggu leen kenn ku taxaw ni. li mom lañu ñu actuellement parce que nit bo tégué dara da ngay dara mais do dégg kenn ci ne la euh, euh, dañu subvention yi nga xam état bi jël na leen dégg FMI dégg nañu institution financière yi ci réew mi di wax état ko def may ñu def ko président de la république c'est en toute souveraineté que le jël mesure yoy ngir am ci doomu adamay mais kenn ku ci nekk tey jii bu ñu waxantee dëgg dinañu xam ne jafe na waaye lu mu jafe-jafe dafa am aussi boo bëggee saafara mbir ay matukaay yoo xam ne moom ngay jër pour man ko saafara léegi nag euh, ñëpp dégg nañu ci fan yi ah ñu yëkkati fi kàddu wax ne euh, Union européenne dafa sàkku ci président de la République ñu dàq élection yi waaye xam nañu ne loolu nekkul waaye ñan ñoo lawal loolu ñi lawal loolu mooy ñi bëggul a dem élection tey jii Sénégal fi mu toll mooy nam ko daan defee ci yeneen yi jiitu saa yu jubee ci élection lu mu tartar lu mu jafe-jafe nit ñi lu ñuy mujjee lu ñu mën a waxtaan dañ ko waxtaane ba mu dox yaakaar naa ni 2012 bi ñuy dem ci élection yi ñëpp xam ne ñi Sénégal jaxasoo woon na tàngoon na lool mais nit ñi def nañu élection yoo xam ne bokk na ci yi gën ci masa am ci biir Sénégal parce que loolu loolu mooy Sénégal c'est-à-dire ñoom dañoo xam ne jàmm gën fii te jàmm gën fa nu jëm kon moo waral Benno Bokk Yaakaar di wax ne euh, am na ci biir Sénégal ñoo xam ne bëgg nañ jàmm am na ci biir Sénégal ñoo xam ne bëgg nañu ñu sàmm république muy li ñu bokk lii nu bokk nag euh, bu fekkee dañ koy sàmm te koy sàmm ci jàmm euh, nit mën naa nekk ci parti d'opposition nit mën naa nekk ci société civile nit mën naa nekk sax bañ a nekk sax ci benn mouvement te bëgg naa Sénégal continuer dox tey doxe ci jàmm mais bëgg naa aussi ñu am loo xam dañ koy respecté mooy souveraineté wu Sénégal bëgg naa mooy Sénégal nga xam ne lu ñu fiy def dogal bi fii lay génn ñi nga xam ne bëgg nañu que bu fekkee ne état dafa lalu ci justice bu fekkee ne justice dafa daje dogal dara tey jii boo jógee ne naa daaneel loolu boo ko daaneel lu fay des pour bañ lolu nak, mo waral wote boobu Benno Bokk yakar wote ko di wax nak ni euh, fii nu jëm na leer ne état bi fas na yene parce que lolu la sénégalais di xaar ci mom moy bien sûr respecter liberté nit ñi waye jël ay matukay pour que kenn du jóg ne day sakku liberté bopam ba xagn yeneen sénégalais sen liberté parce que loolu aussi euh, c'est vrai diamono yi ñu génn ñu bari wax nañ fi walu ay concert de casserole ak yu ni mel concert de casserole fi Sénégal ñun ñi ñoko ñëk def mais il est essentiel ñu léral len ci ban contexte la bobu dañu nek université mu nek 1988 mu am état d'urgence ak couvre-feu ci jamono boo xam ne kenn amuloon accès ci média yi booba Sud Hebdo moo fi nekk Sud nga xam ne hebdomadaire la Walf mensuel la woon politicien daf doon génn à l'improviste mooy mën na toog ba mu yàgg mu génn mën na toog lu yàgg du génn télé amu fi woon rajo amu fi woon budul bu état bi yor euh, yeneen journaux amu fi woon couvre-feu jamono boobu seul moyen bu ñu amoon te ay étudiants la ñu woon c'était justement ñu def concert de casserole pour nous y surtout que pratiquement tous les leaders de l'opposition étaient là. voilà ce qui s'était passé à l'époque à l'époque dans jóg di def manifestation à l'université comme nous avons nit ñi bloqué euh, euh, avenue Cheikh Ante Diop route de Mais, la mais nous, avons ba nous, jamono ko massa nous, nga bëgg a dem ci lijjanti yooya du ñu mën a dem ñu toog ba mu yàgg te ñooñu mën na am ñun la ñu faral te du ñu comprendre puisque amuñu woon accès ci médias yi pour leeral leen ñun nañu taxaw ci ñaari côté tali nga xam dañoo empêcher kenn mu dem mais dañ daan taxaw ci ñaari booru tali bi nga xam ne ñëpp dañuy romb gis ne am nañ luñ naqari du ñu gaañ du ñu yàq duñu toj duñu def leen loolu aussi réalité la pour wax ne dañ doon adap adapté wu ci modèle bi nga xam ne suñu jur yi ak ñi ñu bokkal Sénégal daanañ ko wax am nga droit wax ne lii neexuma li nga amul droit kay mooy nit ki nga xam ne mi ngi dugg ci oto xëy na peut-être am na ku feebar xëy na peut-être am na lu muy wuti loo xam ne mën na ci jox waa këram ñu dund yow nga ne ko doo jaar ci mbedd mi nga xam ne fa nga koy amee ji parce que simplement man am naa lu ma naqari loola nag mooy li lal ñuy wax ne ñoo euh, ñooñu nga xam ne ñoo gisee noonu ci biir senegal dafa jaadu ñu waxtaan seet naka la ñuy fexee ben ba élection yi am ci dab bi mu wara am état bi walam dina ko def mais dafa bax ñi nga xamné c'est des acteurs politiques ou des acteurs de la société civile ou mu doon ñen ño xamné ci biir Sénégal mën nañ fi am kàddu mën nañ fi am baat ñoñe ci bopam ñu sàkkoo ci ñom euh doxalin ak kàddu yo xamanteni day gëna dalal Sénégal te day permettre fofu ñu jëm ñu àgg fa ak jàmm li ci dess nak moy état bi euh, liberté wor moy euh, je pense que niko ko président waxoon ci ci ben waxtanam euh manam élection yi mom dana am ak du am mi ngi kanam mais lolou ken warul ñaan élection yi bañ am maintenant appel bu ma mujjé euh mi ngi lalu ci lepp lo xamné ñun ñëpp xamnañ né légui ñi warona prononcer wu yëpp ci walu yoon wax nañ lolou mom c'est fini jeex légui jëm manam maanaam sëgg bëree moo des te bu ñu sañoon ñepp ñi nga ne concerné na leen kenn ku ci nekk nango sa du doy ci anam bi mu gëna a euh mbirum liste bi ñu wax titulaire ak suppléant là également suñu exemple puisque en 2014 man j'étais euh, le président du comité départemental de pilotage de la campagne à Thiès Ben, ci suñu kuréel yi nekk un am problème bii exactement problème de parité ci liste titulaire Beno, ci bopom booba attaqué ñu biñu démé nous ba cour de d'appel cour d'appelu Dakar cour au Dakar euh, euh, Daniel liste bi yépp ñu dem cour suprême cour suprême takalé liste titulaire bi ak liste suppléant yi woné ni suñu liste suppléant yi mën compétir au nom de André de Thiès et c'est ce qui s'est passé à Fandène

bañ ma si bañ ñu signaloo nañ ko bëggee dama bañ liste bi demee noonu ci élection yi loolu dund naa ko tamit yàlla moo dogal lool alors tey bu fekkee yow da ngaa bokk ci coalition yow sa tur demul turu ki toppoon ci yow dañul waaye list bi ci boppam dana mën a dem ci élection te amul benn sénégalais tey ginnaaw local yi ñu jóge bu mën a wax xàmmeewuma liste bi xawma ni liste bi am na mais je pense que li gën nous yenu maanaa def manifestation ma pense ne réussir puisque def naa la ma bëggoon def wax naa wax mais su may woote une manifestation dafay donne une manifestation démocratique le 31 juillet dans les urnes Mon képp koo xam ne faral nga ma bis bobu jugal nga jël sa bulletin parce que ce bulletin dina fa nekk te nit ñi daañ ko photo nek, ci photo bañ nek, nekk ñëpp xàmmee nañ bulletin boobu léegi ñi ko bëgg a bis bobu ñu def leur manifestation démocratique en allant prendre le bulletin dugalal leen ko yow soo ëppalee après du yaa yore gouvernement bi nga ëppalee assemblée nationale yore gouvernement bi boobaa booba kan moo lay tere ci manifestation alors moi je pense que su fekkee ne dañuy wuti yoon pour vraiment instaurer waat jàmm ni ñu mën a toogaat waxtaan ni ñu mën a préserver l'essentiel mooy li ñu bokk euh, il y a la possibilité de le faire lii daal laa bëggoon a euh, waxandi ci ak tënk euh, nekk à votre disposition pour bu fekkee ne Amna na ay laaj yoo xam voilà euh, mbëgg ngeen ko def jërëjëf